ñaata moo jaar waaw xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga Aliou Cissé. <laughs> dégg naa gars yi du ko ci tooñaat <laughs> mais ce que les gens aussi doivent savoir. Mhm. mooy Aliou a négocié son salaire. Ah, yokkal nañ ko taayee. xam nga waaw xam moom loolu daf ko négocier parce que kii ñëw danaan man mën naa leen jëlal équipe bi mais li ngeen may fay. Mhm. mais président bi bu muy falu moom waxul ne bu ma nekkee président temps ngeen may fay. dafa ñëw mu fekk fi loo xamante ni peut-être. loi la décret la ça dépend en tout cas ni ñuy euh, instituer salaire yi. Mhm. mu ñëw mu fekk fi loolu. donc je crois que à la base voilà ce qu'il faudra réformer. Mhm. maintenant am na ay techniciens yoo xam ne en la matière. Mhm. pour xool su boobaa président bi ban salaire bu décent mooy baax ci moom. Mhm. ils vont se prononcer su fekkee ne c'est un salaire de dix millions ils vont le dire su fekkee ne c'est un salaire de quinze millions il faut dinañ ko bu fekkee ne c'est un salaire aussi de cinq millions wala quatre millions fa la yem aussi ñoom dinañ wax war na ko doy. mais man jàpp naa ne bu ñu réformer les fonds politiques. war nañ ko si en même temps revoir à la hausse le salaire du président surtout que le président en retraite il bénéficie de 9 millions par par mois mm-hmm. euh, le premier ministre aussi am na ñu ne déclaration ñu ngi koy xaar waaw mais xam nga premier ministre moom déclaration sax soo xoolee mm-hmm. moom avant muy avant sax ñu sóobu sax ci moom mm-hmm. defoon na fi déclaration bu yàgga yàgga yàgg sa déclaration moom ba waxee uh-huh. daal ne oto bi ma am dama ko maa ngi koy fay ba léegi. benn kër laa am et cetera. à l'époque ça avait suscité des des des des des commentaires. woy am na kër feneen nangam ak nangam ak nangam mais ñu koy wax ba léegi mënuñu la ci prouver leen. donc par rapport à la loi même de l'OFNAC. c'est sûr et certain qu'il a fait sa déclaration de patrimoine. léegi nag ñun li ñuy xaar mooy que qu'on réforme la loi. ñu publier ko waaw ñu publier. ñi nga xamante ni yëpp ils sont assujettis. parce que OFNAC actuellement nii loi boobu moo ne. il faut ça doit être tenu sur le sceau de la confidentialité donc aussi il ne faut pas que nit ñi en tout cas violer la loi mais man li may jàpp mooy il faut réformer cette loi en disant que ñi nga xaman ne ñëpp dañuy def seen déclaration de patrimoine dañ ko war a c'est-à-dire ça doit être une déclaration publique comme on l'a fait avec président parce que bu fekkee ne président bosam dañ koy wax te ñeneen seen yos dañ koy nëbb pour man jàpp naa ne amul sens waaw parce que la déclaration c'est destiné au public c'est pas destiné vraiment au conseil constitutionnel à l'OFNAC mais c'est destiné au public donc nañ ko jox public bi ñu xam ko parce que nu mu nekk nii moom amul benn cohérence vraiment mais aussi ñu des ci président Diomaye ak ay adversaire am nee nañ lu muy tukki nag dafa bëri tey sax dem na Mauritanie ci prestation serment président Gazouani donc nee nañ def na quatre mille trois cent soixante deux kilomètres boo ci yokkee tey trois cent quatre vingt dix neuf kilomètres yi ça fait trente quatre mille te nee nañ lu ci gën a garaaw zéro accord économique signé. Ah, à l'avantage du Sénégal loolu tamit non xam nga xam nga xam nga aussi misaal président bi waaw d'abord mhm. c'est lui le chef de l'État benn ñun on est dans une sous-région boo xamante ni dans une région boo xamante ni yow gis nga li fi am. soo xoolee c'est onze déplacement yi. c'est dans la sous-région. te visite yëpp c'est des visites en Afrique. en Afrique France rek moo ci am deux. yoon. waaw yëpp c'est en Afrique. waaw xam nga bokk na président yi nga xam ne dañ laa fay fal tey rek suba nga xëy rek jëbalu ci Macron déedéet. <laughs> xam nga d'abord lu moo tax ma ne aspect intégration africaine boobu nit ñi bu ñu ko fàttee. Mhm. nous on est xam nga mbir mi c'est pas parce que da ngay dem signer ay accord économique le problème ça se trouve niveau là nga mhm. accord économique yooyu ñuy wax dañu xaar ba ñu def DPG bi ba pare on verra maintenant ce ce ce ce qu'on va faire mais pour l'instant la diplomatie sénégalaise dafa am benn ancrage boo xam ne dafa war a gën a mën a am dans la sous-région surtout que gis ngeen la ceinture de feu là qui entoure presque le Sénégal mhm. donc jaadu woon na mhm. yow ñu fal la président nga dem seeti président yi nekk fii dans la sous-région ñi nga xam ne dañu nekk dans l'espace de mais un chef d'État qui fait qui fait sa prestation de serment. Diomaye moom bosam bi mu koy def président Mauritanie ñëwul ñëwoon na Gazoani ñëwoon na. te ñun ñu bokk même frontière bokk même. Euh, comment dirais tortu tortue ahmeyim ñu bokk ko. waaw gaz bi ñoo ko léegi kooku def euh, sa prestation de serment nga ne yow du waroo ci dem. <laughs> moo tax man ne la actuellement ceux qui sont en train de critiquer. <laughs> xam nga mooy li wax rek ba léegi amaguñu base pour critiquer président bi léegi nag bu leen neexee ñoo ne woyu 34 nangam et cetera waaw ñoom foofu lañ toll. Mhm. moo tax ma ne gis nga le niveau du débat là. yéegagul ba léegi xam nga tax yéegagul parce que ñi war a wax. waxaguñu man ay débat d'expert laa bëgg. ay débat yoo xam ne nit ñi dañuy toog wax loo xamante ni da lay wóor ne lii pour nga dindi ko problème la. Mhm. mais toujours les gens sont dans des généralités président bi saagam saagu jabar ji ay 3 millions lay jar président bi lii nii et cetera président bi costume mu sol tey nangam ak nangam voilà ñenn ñi seen niveau de débat foofu la toll. alors que man jàpp naa ne Sénégal yi romb nañ foofu même soo xoolee tey dans les réseaux sociaux internautes yi nit ñuy développé sax. dañu romb sax les hommes politiques parce que souvent da nga ciy lire ñoo xam ne nii c'est-à-dire c'est des arguments pointus mu leer na ñii. ñoo romb sa ñoo raw fuuf ñi nga xam ne actuellement ñoo nekk sur la scène politico médiatique taxaw nag di mbël mbël li rek nag waaw parce que aussi moi je dis gis nga un opposant mhm. sa naaj du lu jóg nga wax li ngay wax da koy mûrir nga song yenn débats yi des débats économiques des débats politiques des débats diplomatiques mhm. xam nga dañu waroon wax ne tournée yooyu waruñu woon ban apport diplomatique la indi mhm. parce que il pense que simplement c'est l'économie vivre un pays dañu waroon ne ban portée diplomatique moom la kii yooyu am ban portée diplomatique et je crois que aujourd'hui pour vraiment signer des accords économiques on naa même pas besoin de la présence d'un président dañ xaar quoi xam nga man jàpp naa ne dafa am ñoo xam ne ils ont un besoin irrépressible rek de de parler mais en réalité ils n'ont absolument rien à dire maanaam fi ma leen di xaar mooy président bi ce qu'il est en de dérouler ndax baax na baaxul sooxe na sooxewul wante président bi def na mille kilomètres président bi dox na tant de kilomètres et cetera tu penses réellement que Mbissane ça ça fait avancer un pays réellement. bon le le trop pauvre. man pour ñoom ñooñu nañu élever le niveau de débat. bu ñu nee enjeu économique waaw mais maintenant et l' aspect diplomatique en terme de diplomatie. c'est-à-dire rataxal diggante lan la indi euh, mais mais tu sais loolu. Mhm. tu sais que moom mooy tax économie mën a prospérer. diplomatie mooy indi économie bu prospère parce que quand tu n'entretiens pas de bonnes relations diplomatiques avec les gens ñooñu mënoo am benn ak ñoom ak coopération économique c'est-à-dire sa diplomatie day baax ba pare parce que loolu la yoon la diplomatie économique sa diplomatie day taxaw ba pare économie ñëw fekk si ko mais ki nga amul jàmm kooku mën leen am benn coopération économique ki nga xam ne am leen yenn liens yi kooku mën leen am mën leen déggoo ci leen au plan euh, économique donc c'est pas problème économique qu'il faudra souligner cest à bu fekkee ne aussi les aspects sécuritaires boo amul sa dëkk sa ci suuf rek lay jëm donc il faut Cheikh moo doon wax la sécurité précède le développement mais wala dëgg c'est-à-dire si tu n'es pas bien mhm. ko am mhm. su fekkee ne yow chaque jour ay djihadistes wala ay kii gars yi ñu ngi dugg sa biir dëkk et cetera yow foofu économie tax mën na fa mën fa am maintenant surtout dans une zone très sécure sécurisée war na fi ñu toll nii loo fa def sur le plan économique war na mën a joxe ay fruits. Mm-hmm. donc il faut que les gens quand même un peu le niveau de leur débat. Mm-hmm. te bañ a nekk vraiment dans euh, c'est-à-dire un débat au ras de pâquerette. parce que ñenn ñi foofu lañ toll ba léegi. Mm-hmm. et je suis vraiment effaré quand j'entends très souvent bon des leaders politiques ah bon je pense que ce sont des leaders politiques. qui mettent l'accent vraiment sur le sac de la femme du président ça moom vraiment je suis vraiment effaré quoi franchement. waaw mhm. Bougane moo ko. moo ko moo critiqué parce que nee na bi sac bi dafa cher lool. oui mais xam nga aussi loolu pour man Bougane daal niveau ro eh, war na romb foofu daal. parce que moom il conduit des voitures yoo xamante ni xam na ñaata lay jar. parce que boo ko bëggee jël foofu aussi tu dis man aussi man en l'exemple man peut dëkk naa ci koñ boo xamante e pourtant je conduis un véhicule presque de plus de cinquante millions. xam nga peut-être peut-être moom privé la. bu liggéey am xaalis c'est pas un problème de privé. non xam nga non c'est pas un problème de privé loo xam ne nii non c'est pas un problème de privé xam nga la femme présidentielle. Mhm. du président c'est pas le président. Mhm. mais mënoo koo détacher. mais c'est pas le président c'est pas le président. te loolu muy wax sax les gens ils ont démenti l'information mais man pour man mhm. sax nee naa na millions sax. mais là que yow mi koy wax. une fois que tu yow yow sawal bopp da ngay ne waaw mais man mii wax man oto ñaata laay dawal man costume ñaata laay sol man dal ñaata laay sol. même bu dee dénk ñu ko dara ci réew mi. waaw non du question dénk réew mhm. parce que kee. la mu am mais bu leen bu leen xanaa kay ci xaalis réew mi lañ ko lañ ko ko tibee jox ko quand même mhm. il faut que les gens soient sérieux mhm. la femme du président c'est la femme du président gis nga nit ay principe boo koy défendre. lu baax duma bàyyi ba ñëw au pouvoir door ko mën défendre déedéet étant dans l'opposition man man lii lay bañ comme que man dama koy bañ man tamit naa def de sorte que sama soxna la may bañal soxna jàmm du koy du ko yore dama koy cest à ci loolu laay tënku man aussi dinaa def de sorte que sobriété boobu may may may ma ma ma ma ma gis gis ci président bi naa ko commencé sama bopp parce que su fekkente ne yow yaa ngi koy wax alors que tu conduis un véhicule pratiquement de plus de cinquante millions alors que tam leer na ne am na ñoo xam jigéen nañ la te peut-être ils sont dans les difficultés financières da nga war a xoolaat si bopp. le monde àddina doxewul noonu daal. waaw àddina doxewul noonu donc il faut que les gens élèvent le niveau de débat quoi surtout ñi nga xam ne jàpp naa ne ñoom dañ ne dañ bëgg réew mi. soo bëggee réew mi da ngay indi da ay xalaat yu point boo fexee nit ñi ci lañ lay nawee bu subaa nga mën am benn discours bu crédible. et puis nit ñi ci lañ lay jàppee. bu buñ la war a jox réew mi nañ la jox réew mi. Sonko c'est ça qu'il a bi mu ñëwee. Sonko tu penses réellement que Sonko regarder le sac de de fay sal Sall pour en parler. xam nga loo xam ne da koy bàyyi réseaux sociaux yi. moi j'aurais compris que ces gosses là yi nekk ci réseaux sociaux yi sax wax ko. peut-être parce que ñooñu peut-être dina am beneen kii. mais moi je vois mal un Sonko un Diomaye peut-être dans l'opposition ñaan ah Marème Faye Sall de moom saagam bi 10 millions la jar et man suñu waxoon ma xeeb leen mais quand leur patriote en parle mën nañu wax ne loolu mën nañ leen ko jagleel parce que peut être ñoom loolu mooy seen métier mm-hmm. donc il faut que les gens moo leen wax dafa am leader politique yoo xam ne dafa am lu ñu war a wax lu ñu warul wax am loo xam ne say entourage say lieutenant ñoo koy wax da nga ko war a jox leen wax leen ci lii insister leen ci lii nga créer un débat ci réseaux sociaux yi xale yi dóorante seen biir et mm-hmm. mais yow tu dois être mm-hmm. mais bu fekkee ne yow da ngay dem ba nekk comme xale yi ñu nekk ci réseaux sociaux yi là on commence à se poser des problèmes réellement si ndax yow tu la capacité de diriger le pays ou pas. Mm. parce que moom da leen tongali moom le président Bougane moom dafa tongali Diomaye ak Ousmane Sonko. c'est pour venir ci euh, cérémonie de remise de distinction du concours général. Mm-hmm. ak discours bi nga xam ne nii le premier ministre tenir na ko fa notamment mu pointé du doigt dérive yi nga xam ne nii dañ ko constaté ci réseaux sociaux yi mais. Bougane a immédiatement répliqué ah nee na ay anticorps lañu ay mots yu uti Ousmane Sonko doon utiliser bu mu nekkee opposition la utiliser moom donc. Euh, xam nga xam nga xam nga c'est vrai que Bougane dina je sais ne dina sondal. Hmm. am parce que cette façon de vouloir s'opposer hmm. mooy li wax rek il est toujours dans la réaction. Hmm. xam nga bu fekkee ne tu es dans la réaction. mooy man du pro du ma alors que lui il doit être dans la proaction ou bien même dans l' action. Mm-hmm. dire que yow da nga war di jiitu gars yi di répliquer man doonay compris tey ñu ne Bougane wax na Sonko répliqué na wala ay gaaw Sonko répliqué nañ Bougane wax na président ou bien les gens de la présidence répliqué nañ mais toujours il construit son discours à partir du discours de l'autre c'est-à-dire moom li wax yëpp mm-hmm. toujours c'est sur l'autre rek marquage à la culotte mooy li ma c'est-à-dire parce que il avait fait son tànk Mhm. finalement moom ñu gor tànkam. Mhm. waaw ca jamono yu mag yi. waaw mu la la xam doon def tibb tànk. Mhm. finalement c'est lui moom lañ gor ay tànkam. donc il doit changer de méthode. moi je n'ai rien contre lui. parce que il a courage vraiment et cetera mais dafa am loo xam ne ni pour man daf ko war a weesu. cest à du luy tëb rek nga ne xaar ma bind wax. du tëb nga ne bind wax parce que finalement da dem ba ton discours devient inaudible parce que nit ñi duñ ko lire duñ ko déglu. parce que pollution lay mu mujj nekk Idrissa Seck yow ña ngay waxal yëguñu sax yaa ngi yaa ngi wax Ousmane Sonko il a le droit de se prononcer sur les réseaux sociaux il a le droit de parler d'une régulation des réseaux sociaux Ousmane Sonko même étant dans l'opposition n'a jamais il a utilisé les réseaux sociaux avec ay ay nitam mais il n'a jamais cautionné étant dans l'opposition que nañ wax lu leen neex quand les gens disaient que dañuy am ñuy saaga yenn kilifa di nekk et cetera mais il a dit que képp koy def boo ko ci ñun kiy wax loolu ne képp kuy saaga kilifa dina ko ci ñun mais kooku déjà en filigrane il parle même d'une régulation des réseaux sociaux loolu kay moom je crois que de tout temps ça a été sa posture donc Ousmane Sonko la mu doon wax démb moom la répété waat tey nañ ko vaar xool ba xam bu fekkee loolu am na nañ ko vaar daane ne est-ce que Ousmane Sonko mën na taxaw daal ne sociaux yi def leen la neex saaga leen déedéet Macky Sall de tout temps il avait dit ça mais moom par la suite daf ci gënaat ça. Sonko ah, naa président Macky amoon na yéene. waaw Sonko naa jamais dit que réseaux sociaux yi dañuy censurer nit ñi déedéet. quand on parle de régulation te loolu je crois que tout Sénégalais bu ne bu ma nekk. da nga ci war a xar sa tànk tubéy c'est-à-dire quand on dit régulation mooy que les gens dans le respect de du leneen nit mën nga koo critiquer mën nga ko wax lu ne mais tu le respectes dans sa dignité c'est ça ce que l'on dit. même bu dee jamonoy opposition rawatina am na ñu doon saaga di def yenn yi ci turam aussi. non moom laa la wax c'est-à-dire que moom wax na ko. mais xam nga Ousmane Sonko ne peut pas moom mënul maîtriser ñi bind ci réseaux sociaux y a eu combien de foo comptes yoo xamante ni il parlait au nom du Pastef mhm. ñaata nit nga fi daan gis ñu toog di wax ba pare mbuboo Pastef mhm. du jeex du waaw mais xam nga même loolu nag la Ousmane Sonko daal loolu lañ loolu lañ war a réguler mooy ces gens là qui passent tout leur temps di saaga ay nit ba pare di bëgg a wax ne man fii laa bokk mais loolu ku ko loolu ku ko ku ko encouragé wul mhm. bu subaa tu risques d'en être une des principales victimes Ousmane Sonko c'est ce qu'il a dit bi mu nekkee dans l'opposition et il le redit encore étant aujourd'hui au pouvoir mhm. même bu dee aussi ah. président Macky Sall bu mu yëkkee ne dañoo war réguler les réseaux sociaux Ousmane Sonko yëkkee woon na ay critiques ne loolu mu ngi ko doon gis ay Égypte ak. ah non attention non Macky non Macky Sall Macky Sall régulation ba mu doon wax. Mhm. c'était de la censure. Mhm. Macky Sall dafa bëggoon di censurer nit ñi. Mhm. Macky Sall cest à que dans les réseaux sociaux dem na ba nga xamante ne yow amoo droit nga critiquer kenn. combien de gens nga gis fii ñu jàpp leen sous l'ancien régime. parce que tout simplement dañoo. waaw ay postes parce que Bassirou Diomaye Faye mi lan moo ko yóbbu lan moo tu penses réellement que c'était sérieux tout le temps qu'il a fait en prison à cause de ce poste-là qui aurait pu passer xool de c'est-à-dire mm-hmm. ils ont donné une dimension tellement sérieuse à la chose là ba finalement ils l'ont incriminé